fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bés bu mag boobee waral ñëppi safar mii nga xam ne fu ñu tantale maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp kenn mënu ko Serigne Cheikh ñëw nañ ci sa tub maam bàyyi ko ëttub sëñ Bamba Xaadim Rasuul looy wax waaw balay wax moom mooy mooy loxo Amdi Modou Mbend Serigne Amdi Modou Mbend mi nga xam ne mooy sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw eh, moo mooy fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall moo fi taxaw taxawaayu Serigne Cheikh Fall jëmb Serigne Cheikh jëmb Fall kii mooy Serigne Cheikh eh, ginnaaw bu ñu jullee ci yonent bi ñu sant yàlla di sant Serigne Touba di sant maam Cheikh Fall eh, di ñaanal Serigne Sidi Makhtar Mbacké Serigne Mountakha Mbacké lii nga xam ne mooy màggal gi nga xam ne moom la njëkk a fekke ci bi mu doon ne xalifa bi Sëñ Tuubaa yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér euh, may ko ba nga xam ne si maanaam képp koo xam ne mos na fee jaar rek doon xalifa Sëñ Tuubaa yàlla na la euh, sëriñ bi Euh, yàgg fi lool te ànd ak wér am nañ ci lii nag am nañ ci kontaan lool am nañ ci kontaan lool ndax wax dëgg yàlla bu ñu sañoon njaareem moom fii li fi sëñ Tuubaa def def ko fenn kon bu ñu sañoon moom njaareem moom mooy mel ne lépp lii nag moom doone sëkk firnde ci sëñ Tuubaa mm-hmm. lii moom doone sëkk firnde ci sëñ Tuubaa mm-hmm. sedd na guy yi nañ ko yàgg def te yàgg koo mën ci barke sëñ ak Cheikh Rafal yàlla may ci jàmm diggante maam Cheikh maam Cheikh Rafal ak sëñ moom seede ci dana jafe ci man mm-hmm. ndax dama kon seere ci dana jafe ci man lool xam naa daal moom ah, diggante la boo xam ne si kenn xaju ci ñoom ñaar rek la daal dëgg la jërëjëf dimanche la bis doxu fi bis doxu fi daal nag maire a ngi nii waaw waaw jàpp ci bis ànd ak ñëpp di dox Moustapha Gueye Moustapha Gueye waaw waaw ñoom ñëpp ñu ànd ak di dox jërëjëf Fall jërëjëf Fall xool yi sedd na na avancé na avancé na avancé